saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa diggante CNG arbitre ya tey le deuxième tigre de Fass Moustapha Gueye moo génnaat yàkkati leen lu mel ni xame saa yu ñu xëyee am ku génn ŋaañi CNG ba noppi soutenir arbitre ya tey le deuxième tigre de Fass Moustapha Gueye moo génn ak opération muy wax wër ndombo dafaa koy wër ndombo mu ne Alioune Sarr ak CNG ñoom laa bëgg wër ndombo yëkkati teg ci suuf on doit balayer le CNG kàddu yooyee la fësal ba nangu ci bile décision CNG bile décision kenn du ko nangu ndax injustice la Alioune Sarr mi ko def ak équipe am dañ leen a waroon a balayee ca biti man sax damaa xamul nan lañ mën a sanctionné ay arbitre yoo xam ne intellectuel lañ rawatina Sitor mi nga xam ne am na bac plus six ba noppi nekk roy waaye au niveau international li ni mel mooy wane ne CNG tële na mënatul ay gone yu bees tàq lañu soxla un vedi 109 Alioune Sarr octobre la war a jeexal waaye duñu xaar sax mu àgg foofu dañu koy taxañ jële ko fi ci ni mu gën a gaawe rax ca doole moom Moustapha Guèye ne Matar Ba mi ministre bu waxul day mujjee doon complot digganteem ak CNG moom ministre bi dafa war a génn wax lu dalal xel yi lu ko mooy lu CNG def dañuy jàpp ne ne moo ko ci bàyyi bu dee góorandooy may président des jeunes amateurs la mu xam mooy Alioune daa war di diisoo di waxtaan Alioune dafa war a xam ne day gérer ab groupe te kuy gérer ab war jéggale war a bu dee Xaaya Gueye vice président des amateurs de authentique moom ay kàddoom waroon ak yeneen amateurs ya moom la mu jàpp mooy CNG rawatina Alioune Sarr warut tey warut a démissionné ëllëg Alioune ku ko wax dara tooñ ko ndax moo nekk ci dëgg rax ca làmb raje gi ñu raje Sitor Ndour lu jaadu la Moussa Ndiaye président école de lutte Balla Gaye ne ca tonn ne loolu du dëgg du yoon Sitor Ndour mii ñu raje du dëgg du yoon teguñu ko ci dëgg ku def ans d'expérience ba noppi nekk fierté au niveau international kenn waru raje ci condition yi CNG dañ ko war a tas def ko fédération li gaay yi di mën di wax yépp ñoom ñu ngi ne patt pataaral ñoom arbitre yi di wéyal seen mouvement ñu ngi ca grève ba ba léegi xalaatuñ a doxal te nar a doxal tey ci national mooy Assane Ndiaye njiital Bawol production combat bi ñëpp doon xaar diggante Bébé Diène ak Fourrière tey la ko jàpp ci samedi ji duel entre technicien noonee la ko journal ba tippe bu dee ca baar ñi Serigne Modou Niang moo fa woote diggante 10 000 problème ak Bour Sine le journal ba xamle mooy combat boobee faaw kur peña mel ni mboo jëm gerte dimanche yi ca arène nationale foofu soq ak gàmmu géey ñoo fa fa séene jàkkaarloo bu dee ci lit sans frappe nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah